أيسمني الله عند جاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي بكي تالبي بكي جلدي bokk yi bokki taalibe yi bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziyaar ci tereftal uh, sunu weeru bopp bu rëy wi tereftal bu weeru rëy wi te mag lool ci nun uh, cant cant gi nag. borom liggéey bi rek lañ ciy jiital. kon liggéey bi rek lañ ciy jiital. borom liggéey bi liggéey bi rek lañ ciy jiital. moom bis bi dafa wax ne boo xam ne bisu sant dañu cee digal ñu santale ko ci boromam. bis bi dañu cee digal ñu santale ko ci boromam. waaye man nag ni ma ko gisee bala ñu ko bala ñu ko gisee koo sant dañ koy sant ba noppi. nee na moom ni mu ko gisee ñun bala ñu koo santale dañ koy sant moom ba noppi. dañ koy sant digganteem ak boromam. dañ koy sant digganteem ak boromam. sant ko digganteem ak yonent bi. sant ko digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sant ko digganteem yàlla yi gaay gaay yàlla ci kaw. sant ko digganteem ak gaay yàlla yi ci kaw. sant ko digganteem ak gaay gaay yàlla ci suuf. sant ko diggante ak gaay yàlla yi ci suuf. di ko sant ci jëmmi boppam di ko sant ci jëmmi boppam ji. yan bu bi mu yan diggante ak boromam muy màggal ko. yan bu bi mu yanu diggante ak mooy màggal ko. fa ko àggalee ni jote ñu bari jotewuñ fa. fa ko àggalee ñu bari jotewuñ fa. ñu ñu bu ci ñu néew a ci ñu néew a ci jote. buñ ko santee ba noppi nag. buñ ko santee ba noppi nag. door a jëm nag ci santale ko. door jëm nag ci santale ko. santale ko santale ko nag dafa am waajtaay. santale ko ak sant ko nag dafa am waajtaay. dafa aajo dafa aajo teewlu teewlu teewlu jëmmam ji ci suñu xol yi dafa aajo ñu teewlu jëmmam ji ci suñu xol yi ak ci suñu xel yi. daf koo laaj. daf koo laaj. buñ ko defee. buñ ko defee. danañ woon gannaaw lépp lu dul moom. danañ woon gannaaw lépp lu dul moom. ci loo xam ne danañ soxal. ci loo xam ne nu soxal. ci sunuy xel ak sunuy ji ci sunuy xol. ci sunu xel ak ci sunuy xol. sunu lépp. sunu lépp. muy sunu jublu. muy sunu jublu. jox jox delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. il faut que dëddu. fokk nu dëddu lépp lu dul moom. lépp lu dul moom. muy moom rek muy sunu yitte. moom rek nekk sunu yitte. ndax nun mën nu ko fayee amul amul luñ ko mën a fayee. noonu nag amul luñ ko mën a fayee. loolu jox ko sunu lépp rek. loolu jox ko sunu lépp rek. nekkal ko nag. nekkal ko nag. ni mu ko bëggee ci nun ni mu ko bëggee ci nun nekkal yàlla rek. nu nekkal yàlla rek. ndax bu buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. ndax buñ ko nekkalee ci ni mu ko bëggee. noonu la ko sunu borom bëggee ci nun noonu la ko sunu borom bëggee ci nun bu nu teewloo nag ci loolu ba noppi. bu nu teewloo ci loolu ba noppi. delloo ko suñu lépp. delloo ko suñu lépp. nu door a nag. nu door a dellusi nag. àndaat ak suñu sago. àndaat ak suñu sago. fas yéene koo santale nag. façon fa yéene koo santale nag. ci bis bii hmm. ci bis bii. kon man noonu rek laa ko gisee. kon man noonu rek laa ko gisee. kon sant ko ci suñu lépp nag. kon comme sant ko ci kon kon sant ko ci suñu lépp nag. mooy loolu rek nu nu delloo ko suñu lépp. mooy nu delloo ko suñu lépp. suñuy xel ak suñuy xol. suñuy xel ak suñuy xol. ak su su suñuy jëf. ak suñuy jëf. xam ci ci ci ci ci ci ci jàng alxuraan. tàmbalee ci jàng alxuraan. jàngal ko xasaayidam yii jàngal ko xasaayidam yii. nga xam diggante boromam rek ak diggante yonent bi. diggante ak borom rek ca nekk ak diggante ak yonent bi. ak deeyaaleem ak deeyaaleem rek la. ak deeyaaleem rek la. ñu nekkal ko ci bis boobu. ñun waaj waajal suñu bopp teewlu. ñu nekkal ko ci bis boobu waajal ko suñu bopp te teewlu. waaw teewlu. fonk fonk fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk jàng yi ñuy jàng alxuraan. fonk ko bu fonk jàng yi jàng xasaay fonk jàng yi ñuy jàng xasaay yi. loolu lépp ñu am ci pësteef. loolu lépp ñu am ci pësteef. di ko di ko sa di ko sàkkoo ngërëmam. di ko sàkkoo ngërëmam rek. gannaaw jàng yi jàng alxuraan gannaaw jàng xasida gannaaw jàng alxuraan jàng xasida ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm ñu wëlbatikuwaat ci sunuy jëmm nanu nanu gën a gën a tàggat suñu bopp nanu gën a tàggat suñu bopp gën a toroxlu jëm jëm ci jëm gën a toroxlu jëm ci sant ko jëm ci sant ko jëm ci santale ko jëm ci santale ko kon bu nu bu bu bu nu teewloo ci sunuy xel ak sunuy xol ak sunuy jëf kon bu ñu teewloo ci suñuy xel ak suñuy jë ak suñuy yëpp. suñu wërsëg mi ngi ci biir loolu. suñu wërsëg wépp nag a ngi ci biir loolu. lépp nag ñu delloo ko ko. lépp nag ñu delloo ko ko. ci ci ci xeeti ci xeeti xeeti jëf yu baax. ci xeeti ci xeeti jëf yu baax yu mën a doon nag rek xam ci wërsëg la jóge moo xam ci wërsëg lu jóge moo ci leneen lu mën a jóge moo xam ci leneen lu mën a jóge rek lu baax rek la loo xam ne lu baax rek la lépp ñu boole ko loolu lépp ñu boole ko jëfandikoo ko jëfandikoo ko jébbal ko ko jébbal ko ko santale ko ko santale ko ko diggante ak boromam loolu mooy li ci jiitu loolu mooy li ci jiitu moo ci am solo looy loolu mooy li ci am solo yàlla na nu suñu borom gën a gën a gàttandoog tawféexam. yàlla na nu suñu boroom gën a gën a noo gàttandoog tawféexam. ba nin ko nin nin ko nin ko nin ko war a santalee. nin nu nu nu nu nu xamee ko ni mane ko ni. nu ndax niñ ko war a santalee ñu xamee ni mane ko ni. jë jë jë jëfee ko ni. jëfee ni. jëf ju sell. jëf ju sell. yàlla na nu ko suñu borom. yàlla yal na nu ko suñu boroom defal. may nu kattan gun ko gun gun gun ko mën a santalee. may nu kattan gun ko mën a santalee. ci suñ lépp ci suñ lépp. kon jërë ngeen jëf. kon ñu ngi leen sant mi ngi leen sant jërë ngeen jëf. noonu rek la. noonu rek la. bokk yi bokk yi. bokk yi bokk taalibe yi bokk taalibe yi bokk jullit yi jullit yi. kon bis bis baa ñëw. kon bis baa ngi ñëw. nan ko waajal bu baax nan ko waajal bu baax. ni mu ko bëggee. ni ko bëggee. sunu kem kattan sunu kem kattan. nu jéem ko. nu jéem ko. loolu ci man lu nu ci man lu ci nu def ko. nu def ko lu nu ci mënut. lu nu ci mënut. nu yéene ko. yéene ko fas fas ko. fas ko. jéem ko jéem ko. sunu kem kattan sunu kem kattan. waaw loolu loolu loolu loolu rek la demee loolu mooy mooy àq bis bii ñu jëm. loolu mooy àq bis bii ñu jëm. mooy sunu bis boo xam ne euh, la boo xam ne. bis la boo xam ne. Euh, euh, li ci nekk ci ci ci jiw yiw ci yiw. ci mën nu ko wax ci suñuy làmmiñ ñu ko xalaat ci suñuy suñu suñuy xel nekk ci njëriñ ci bis boobu yi di ñëw mm-hmm. mënuñu koo xalaat ci suñuy xel mënuñu ko wax ci suñuy làmmiñ mënuñu koo xiyaas itam loolu rek la xanaa dañ koy dan dan da dañ koy sante suñu borom rek dañ koy sante suñu borom rek sëñ bi dañ koy sante suñu borom sëñ bi dañ koy sante suñu borom rek minu booleeg moom moom minu booleeg moom waaye waaye waaye loo xam ne lu lu lu lu lu lu lu nu mën la. du du loo xam ne nag lu nu mën la. dañ koy bëgg ka jéem rek. dañ koy bëgg ka jéem rek. loolu noonu rek la demee. noonu rek la demee. kon nag euh, noo ngi sant. kon nag noo ngi sant. Euh, bokk yëpp. bokk ñoo ngi sant bokk yëpp. bokk bokk bokk bokk bokk yi. bokk yi. ñoo euh, ngi leen di sant bu baax. ñu ngi leen di sant bu baax. loolu nag sama sama wàllu bopp la. loo nee na loolu moom cant googu wàllu boppam la. damaa am cant gu rëy sama digganteeg bokk yi. ne damaa am cant gu rëy. sama diggante ak bopp yi. ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma seqal sëriñ bi. ñi ma seqal sëriñ bi. ñooñu ñoo ci jiitu. ñooñu ñoo ci jiitu. ak ñi ak ak ñi ñu ko bokkal ñëpp. ak ñi ñu ko bokkal ñëpp nag. dana am cant gu rëy goo xam ne mun mun xaw ma nu ma koy sante. danaa am cant goo xamante ne xaw ma nu ma koy sante. sama diggante ak ñoom sama diggante ak ñoom. waxuñu ma waxuma sax ñu jàppale ma. waxuma sax ñu jàppale ma. waaye dañ maa soññu. dañ maa soññu. dañ maa dimbali. dañ maa dimbali. dañ maa sagal dañ maa sagal mënuma koo lim. mënuma koo lim. sama diggante ñoom sama diggante ñoom. liñ ci jëf liñ ci jëf. Euh, mënuma koo lim. mënuma koo lim. kon kon. mboolem bokki taalibe yi. mboolem bokki taalibe yi mboolem bokki yi. mboolem bokki jullit yi nañu xam ne. nañu xam ne. sama bokki bopp yi sama bokki bopp yi naa leen gërëm sant naa leen gërëm naa ñoo ko jë ñoo ko jëf. te ñoo ko jëf. ñoo ko sama diggante ak ñoom. ñoo ko jëf sama diggante ak ñoom. di sant nag. di sant nag. bokki taalibe yëpp bokki taalibe yëpp ndax lépp ndax lenn la ñun ñëpp. ndax lenn lañ ñun ñëpp. ñi ñuy tudd di tudd sëñ bi. ñi ñuy tudd di tudd sëñ bi. ak ak ak ak ak ak taalib yi. ak taalib yi ak taalib yi sëriñ bi. ñun ñëpp. ñun ñëpp. lenn rek lañu. lenn rek lañu noo bokk lépp. noo bokk lépp. noo noo noo noo ànd lépp. noo ànd lépp. ñooñu itam. ñooñu itam. Eh, maa ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm. sant gu rëy a rëy sant gu rëy a rëy eh, ndax ndax eh, ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom sama bokki taalibe yi ndax ñoom sama bokki taalibe yi ñaari anam laa ci taxawee. ñaari anam laa taxawee ci sama bokk taalibe bi sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñi ma ñii tudd sëriñ bi sama bokk yi. ñi ñii tudd di tudd sëriñ bi sama bokk yi. ñaari taxawee la ñaari ñaari ñaari anam laa ñaari anam laa ci am. sama digganteeg sama bokk yi ñi ma bokkal sëriñ bi. sama bokk sama digganteeg sama bokk yi ma bokkal sëriñ bi. ñoom sama ñi nga xam ne xaddam laa ci ñoom. ñi nga xam ne xaddam laa doon doon ci ñoom. ak ñi nga xam ne mbokkum mbokkum mbokkum taalibe laa doon ci ak ñi nga xam ne mbokkum taalibe laa doon ci ñoom na ngeen na maa ngi leen di seeral rek sama nañu xam waxtu wu ne noo gu ma noyyi maa ngi ci leen di seeral ne maa ngi gën a yees sama jaayante sama sama jaayante sëriñ bi di leen di di gën a yees feddali sama laxsaay gi ma fas laxsaayoo fas yéene liggéey sëriñ bi te lépp nag ma ànd koog ñoom te lépp itam lu ma ci wut ñoom laa ciy jiital si sama bopp maa ngi fas yéene nokki gu ma nokki maa ngi koy fas yéene jaayante koog jaayante koog sama sama digganteeg sëriñ bi ak sama digganteeg ñoom ak lu ma mën ci àdduna lu mu mën a doon rek ma ànd ba fas yéene koo ànd ak ñoom rek ba faw loolu loolu mooy mooy mooy sama cant ak wax sax. loolu mënu ko wax sax ndax mënu ma ko wax sax sama lami. noonu la loolu laa ko mën a firndeelee. waaye noonu yi rek laa ko mën a firndeelee. Euh, dellu si tam nag. dellu si itam nag. ci euh, cantuk boppam. cantuk boppam. muy sembu wu sëriñ bi. muy sembu wu wii nu sembal sëriñ bi. te te te te te te te mu bokkoon ca euh, la la la la la ministre la mébétaloon boppam la ministre boppam. mu bokk ci la nga xam ne moom la nisaraloon boppam. xaw ma sax nu ñu koy waxee waaye moom lu lu lu mu faggaloon boppam la. ba noppi xaw ma sax koy waxee waaye lu mu boppam ba noppi loolu moom danoo am tawféex kenn. loolu moom danoo am tawféex. dong yem ca yem ca. nekkal ko ci nekkal ko ci. Euh, muy. liggéey bu bi muy daara ji. muy liggéey bu rëy bii di daara ji di université bi. liggéey liggéey boobu. liggéey boobu. doy na waar lool ci man. nee na liggéey boobu doy na waar lool ci man. xalaat ji moom mënu ko ñàkk xalaat. xalaat ji moom mënu ko ñàkk xalaat. waaw da da fas yéene ko rek. fas yéene fas yéene fas yéene cee liggéeyal sëriñ bi. fas yéene cee sëriñ bi. waaye nag. waaye nag. fii nii nii ñu ko àndeeg man. nii ñu ko àndeeg man. muy bokki sama bokki bopp yi. muy sama bokki bopp yi. di bokki taalibe yi. ak bokki taalibe yi. nii ñu ko àndeeg man. nii ñu ko àndeeg man. lu lu lu lu lu. bettuma sax ndax sax xam seen diggante ak sëriñ bi bettuma sax nag ndax xam seen diggante ñoom ak sëriñ bi waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe sama njort waaye nag fekk naa ci ñoom lu kawe nag sama njort loo xam ne eh, rëy na ci man lool loo xam ne rëy na ci man lool mënuma koo xam nu ma nu ma nu leen di sante mënuma koo xam nu ma leen di sante te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci maase te loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñëpp ci maase ñëpp ci maase ànd ànd koog man ñëpp ci maase ànd koog man jiituwuma leen ci luy day ne dee dee ci be nee na jiituwuma leen ci lu day nit liy dee ci be noo bokk yéene ji noo bokk yéene ji xalaat bi bokk xalaat bi bokk pësteef bi bokk pësteef bi bokk jublu gi bokk lu jublu gi bokk jëf ji bokk jëf ji bokk bokk liggéey bi bokk liggéey bi kon ñooñu nañu xam ne maa ngi amel naa leen cant gu rëy rëy rëy. ñooñu nañ xam ne amel naa leen cant gu rëy rëy rëy. boo xam ne dama ko dama dama dama dama dama damay ànd ak moom ba ci borom liggéey bi. damay ànd ak ñoom ba ci kanam borom liggéey bi. ma ma ma ma ma ma sant leen fi kanam ma sant leen fa kanamam. loolu mooy lay lay lay lay sedd sama xol. loolu yi mooy sedd sama xol. foofu rek laa ko jëmee foofu rek laa ko jëmee. kon jërë ngeen jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax yéen mbokk yi ak talib yi. Euh, di gën a santaat na geneen sant geneen sant bu ci dolli. ne di gën a santaat geneen cant nag goo xam ne moo ci dolliku. ndax euh, jamono jii nu weesu. ndax jamono jii nu weesu. xat na lool. xat na lool xatoon na lool. xatoon na lool. waaye. tawféex sëriñ bi rek. waaye tawféex sëriñ bi rek. moo moo nekk suñu kanam. moo nekk ci suñu kanam. ñun xamuñu dara. ñun xamuñu dara. doonul dara doonul dara. doonul dara mënuñu dara mënuñu dara. tawféex sëriñ bi rek mooy la ñuy xool. tawféex sëriñ bi rek moom la ñuy xool. bu bu nu sëggee rek mu wonnu fan. bu nu sëggee rek mu wonnu. loolu rek moo ci am fan jëm. rek moo ci am. loolu rek moo ci am. Ah, ah, xew-xew bi amuñu ci woon benn benn tiitaange. nee na mosuñu ci am benn tiitaange ci xew ni ma ko daal leerale rek nun nun dana yaa yaar rek yaar rek moo moo nekk moo moo moo moo nekk ci suñu wet. ndax yaar rek moo nekk ci suñu wet. yaar yaar yi rek mooy moom moom la ñuy moom moom moom moom la ñuy yaar yi rek moom la ñuy jëfandikoo. mooy mooy mooy wéetal yàlla. mooy wéetal yàlla. yàlla mooy def mooy dindi. moo yàlla mooy def mooy dindi loolu dañu am yaqin ju mat sëkk. danoo am yaqin ju mat sëkk ci ne yàlla dong ngay def moom rek ay dindi. doyloo sëriñ bi itam diggam ak boromam. doyloo nag sëriñ bi nag diggante ak boromam. ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun ndax sëriñ bi lu mat a fàggu ci nun fàggul nanu ko fàggul nanu ko lu mat a ñaan lu mat a ñaan ñaanal nanu ko ñaanal nanu ko te jiwoon na ci ak boromam te jiwoon na ci ak boromam kon kon yàlla nag yàlla nag moo xam li muy def moo xam li muy def soppiku jamono mosu fee jóg soppiku jamono nag mu mosu fee jóg diggaale mag jaam ñi mosu fee jóg diggaale mag jaam yi mosu fee jóg te du fi jóg mukk nag loolu mooy mooy xew-xew bu yees loolu mooy xew-xew bu yees loolu dong la loolu dong la waaye nag waaye nag eh, amuñu ci lenn lu ñuy lu ñuy jaaxal nee na nag dara amu ci amuñu ci luñ ciy jaaxal lenn lu sikki sàkk wala lenn lu ñuy sikki sàkk am musta am eh, ci loolu nag ci biir loolu ma am ma ma ma ma ma ma ma ma ma am ma am cant gu rëy nag. ci biir loolu nag ma am cant gu rëy. ci ñi ñi ñi ñi ñi ko bokkal. ñi ko bokkal. ndax diine jee fi nekk. ndax diine jee fi nekk. ak adduna ji ak adduna ji. am na ñu mu dénk diine ji. am na ñu mu dénk diine ji. am na ñu mu dénk adduna ji. am na ñu mu dénk adduna ji. nu bokk nu bokk nu bokk jamono. nu bokk benn jamono nag. bokk lépp nag bokk lépp nag. waaye nu xaw a waree. waaye nu xaw a aw doxin. aw waree aw doxin. waaw ñoom itam. ñoom itam. Eh, eh, ci seen liggéey rek lañ nekk. ñoom nag ci seen liggéey rek lañ nekk ñoom waa adduna yi. ndax la lañu ñu xam. ndax la ñu xam. borom xam-xam yi saahir borom xam-xam zaahir yi. la ñu xam la ñu xam. moom la ñuy jëfandikoo. moom la ñuy jëfandikoo. Oh, loo loolee nag. loolee nag. ma sant am ci cant lool. maam ci cant lool. waaw ndax eh, ndax. di di président président Macky mi fi nekk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 dimbali na ma ci sama taxawaay dimbali na ma ci sama taxawaay kam kattan lu ma defal tax lu ma defal rek sëñ Tuubaa tax waaye nag dama koy gën a bàyyeeg waaye dama koy gën a bàyyeeg sëñ Tuubaa te xam ne du ko rëcc mukk te xam ne du ko rëcc mukk lii lii lii alhamdulilahi rabbil alamin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 su kon nag sax sañ na noo sax dakk ci jaamu yàlla sañ na noo sax dàkk ci li ko liggéey nan nekk ci diggante boobu nan nekk ci diggante boobu rek nan nekk ci nam nekkee ci diggante bee rek noonu la ñuy nekk suñu digganteeg moom rek noonu rek la demee ko nag euh, jërë ngeen kon nag ñu ngi leen sant bu baax de leen gën a sant di yeesal cant gi bu baax a baax mbirum mbirum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 la ci la la ci jub ndax liggéey Sëñ Tuubaa te day wéy di wéy te loolu day wéy di wéy buñ ko yemale fenn incha allah duñu duñu xañ dara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 nag jëme ko nag ca la nga xam ne eh, doxeen woowu nu dox doxeen woowu nu dox ñu jëme ko ci mu lam lam nuy andil lam nuy andil mu yiwu adduna mu yiwu adduna ak yiwu alaxira ak yiwu alaxira loolu rek la nuy andil loolu yi rek liggéey boobu buñ ci defee liñ ci man lépp loolu rek la nuy andil ko xamee noonu nan ko xamee noonu loolu foo ci laa fi laa nekk nee na foofu la nekk te yéene naa ko sama bokki taalibe yëpp te yi nag yéene naa ko sama bokki taalibe yëpp waaw lañ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 te sëriñ bi ñëwut bor dafa am pay kon ni ko sëriñ bi santaane rek na ko bokk taalib yëpp xamee noonu ni ko sëriñ bi waxee itam njàngu alxuraan bi itam ni ko ni ko kilifaam yi jëkk daa diglee mi ngi koy fàttali ñëpp na ko ñëpp tàmbale woon ko sax waaye neen mi ngi koy yeesalaat ginnaaw weeru tàbbi na ba bañ a àgg ci bis ba ni ko daa santaane yëpp mi ngi leen koy fàttali di fàttali itam xasaayid yi nga xam ne sëriñ bi ko def te sëriñ bi leeral lépp lim daa déyaale boroom loolu itam sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalib yëpp ak lépp loo xam ne nit mën na ko ci lu baax na ko Cheikh Mahamadou Farid daa waxee nañ nañ ko màggal ci lépp loo xam ne ak jaamu yàlla ak lu baax kon nag sëriñ bi nee na mi ngi soñ bokk jullit yëpp di soññ bokk taalib yëpp ci bis bi nga xam ne amuñ loolu moom muy bisu sëriñ Tuubaa bi bu loolu jàllee itam nag mi ngi soññ bokk taalib yëpp ci ni mu ko waxee nga xam ne ñëpp xam na ne day itteem muy daaree Cheikhul Khadim ji nga xam ne mënees naa wax ne naa li fi Serigne Touba bàyyoon moo fi des yàlla def itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke naaloon ko sëriñ Serigne Saliou Mbacke ñëwoon mottali ko bu ubbi daaree alxuraan ji bi yàlla defee nag kilifaam yi ko fi wutu di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Moussa ku ci ne amoon yéene ja moom bi mu agsee nag waxtaan wu mu njëkk a wax ñépp dégg nañ ko mooy. musuma am benn xalaat wala jënd yitte lu may daari Sëriñ ji kon nag Sëriñ Tuubaa da ko cee liggéeyloo liggéey bi it feeñ na ndax boo mu ko tàmbalee ba nëgë ni sant na bokk julli di sant bokk taalibe yi ndax wane nañ ci yitte wane ci taxawaay wane ci positif kon da leen sant ci li weesu lépp ngir xam ne la Sëriñ Saliou Mbacké daa wax ne joxe bi dafa jiitu laaj bi kon moo tax soññut sax di leen soññu. ndax xam nañ ne def ngeen li man ak li ngeen mënut te ko dem ci liggéey bi it da xam ne ñëpp wane nañ ci seen yitte wane ci seen taxawaay wane ci seen positif waaye nag yéene gim leen ko yéene ndax xam ne ni mu ko waxee rek lépp lu baax rek yéen la ko gën a yéene ci jëmmam moo tax bu soñoon kenn ku ci ne lu ci waay defoon rek na xam ne day door tàmbaliwaat ndax ndigalu Serigne Touba lu mujj rek mooy ndigal la te lii nag moo fi mujjoon ci ndigalu Serigne bi kon Serigne bi nee xam na ne. li ngeen man ak li ngeen mën lépp def ngeen ko kon sant na bu baax waaye nag ki ngeen di jëfal teg na ci bëtam kon nag li ci kanam mi ngi soññaan ñëpp ku ci jëfoon nag na nga na na nga xam ne yaa ngi door mel ne kuy door a tàmbaliwaat te xam ne lu njëkk la suñ borom daal la ko fay la ko fay waaye li ci kanam itam lu ci waaye defoon rek na ci defaat ko ëpp ngir xam ne liggéey bi liggéey bu yaatu la boo xam ne ni mu ko waxee rek yëmul fenn te keroog ba muy tax xeer ci loxoom yu teddee dafa waxoon ne. liggéey bu mu laal suuf kon loolu nañ xam ne amaanatu ci yoon wépp nañ xam ne liggéey kon bu laal suuf mel na ni ñëpp dégg nañ ko noonu waaye kon nag ñu ngi soññaat ñëpp ngir xam ne jëf ci moom la sëriñ bi waxoon rek bokk na ci njëriñi addiya addiya dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara dana fekk fu dara nekk mu baril ko waaye dana fekk fu bari nekk mu barkeel ko kon sëriñ bi ne mi ngi soññ ñëpp ci bis bii nga xam ne ci jublu si di ñaan ñu àgg ca te dugg ci bismillahi rahmaani rahim day ceeg tawféex day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh أيسمني الله عند جاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري